asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki yaakaar ñu ca duñ seetaan fun ma di nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tuur ak sa sant ca di leen siyaar bu baax a baax di leen ndokkeel mu mel nag mbokk yi nga xamante ni ñu ngi jàkkaaru ñu ci duñ seetaan yéen a ngi ànd ak euh, seen site internet murit point info ci seen euh, euh, jotaay bi nga xamante ni tey nag taamu nañ niñ ko baaxoo defee di dalal ay kilifa yoo xamante ni dañuy waxtaan jëm ci lépp loo xam ni day dimbali doomu aadama bi ci nekkinam fii ci àdduna ndax kenn ku ne xam na ni jafe-jafe yi bari na li nit ñi jànkuwanteel itam ci coono wala metit wala itam ci wàllu wërgu yaram bari na trop jaaxle itam bari na ci Sénégal ba nga xam ne euh, àdduna kenn mënatu ko xiyaas loolu nag moo tax tey ñu doxantu ba fii ci parcelle fekk fi ki nga xamante kenn la ci euh, liggéeykat yi euh, l'islam yi di taxaw itam ñi nga xam askan wi mu di ki nga xam ni mooy Baye Ablaye Thiam nekk koo xamante ni jàngalekatu alxuraan la lépp mu teg ko ci alxuraanul karim di ab ñaankat boo xamante ni lépp da koy sukkandiku ci diine sukkandiku itam ci lislaam ndax yàlla ma wax ni ñaan leen ma may leen su ngeen ma ñaanee ma may leen kon nag looloo tax mu jël léppam teg ko ci alxuraanul karim di àttew ci sunna si yonante bi ngën ji mi def sallallahu alayhi wa ngir bañ a guddal dañ koy jébal kàddu gi mu nuyoo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 والصلاة والسلام على من لا نبي له بعد نبي الخدا نبي رحمة كما قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين يا همة السيق أخد لنا في هذا المعذر ولتأتي فيه بنصرة تأتي لنا بالسفر ربي اسرح لصدري ويسر لي أمري وحل الحقدة من لسانه يفقه قولي غناو بني سانتي الله جلس يونتي ام بوتاد بي صلى الله عليه وسلم ñu ngi lay nuyu Murid Info euh, di Serigne Mbacke ak Diop di nuyu mbooleem maanaam auditeurs yi ñi nga xamante ni ñu ngi déglu maanaam suñu audio bi wala suñu vidéo bii nii muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ci Sénégal ak ci biti Sénégal yëpp ñu ngi leen di wax nuyoo bi gën a tedd gën a sakkan muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. salaam wa rahmatullah euh, Baye Ablaye kon. nuyoo bi mel na ni sell na ca matale na tey nag euh, suñu bëggoon a xam kan mooy Baye Ablaye Thiam lan nga ñuy wax présentation bi nga xamante ni euh, dinañ mën a xam kan mooy Baye Ablaye Thiam. Baye Abdoulaye euh, as Thiam la soo xamante ni mi ngi fekk baax Medina Cheikh Ibrahim comme ni koy faral di waxee mooy Medina Baye Niass foofu lañ juddoo fa lañ yaroo ala xaal am nañu lu ñuy wax dëkk cosaan mooy Thiamène Santhi. ñu di ko wax Madina Thiamène nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim moo tudd dëkk boobu noonu tuddee ko Madina Thiamène alhamdulilah foofu lañ suñu euh, ba kawa manam fende ku tuti ci euh, alquran ji ñu dellu si fi nga xamante lañ gane wan aduna muy Madina Cheikh Ibrahim foofu lañ wattoo suñu àlliwa maanaam fa lañ mokkalee alquran ci gannaaw bu ñu alquran yi tofal nañ ca yenn ci téere yi téere xam-xam yi muy fiq muy naxwu muy euh, comme niñ ko gannaaw ba laxas nañ jam euh, réew bu ñu wax Gàmbi ci saawiya bu ñuy wax saawiya euh, Baye Baye Cheikh ture Touré mag la ci mag ñi nga xamante ni dañoo àndoon ak Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu muy mag moo xamante ni ñëpp xam nañ ko ràññee nañ ko ci xam-xamam ci njubam ci maandoom ci léppam foofu la yàlla defoon ñu dem fa yokk suñu aliwa foofa it yàlla dogal na fa wattu nañ fa lu bëree bëri ci wàllu téere yi yu xonq yi ak yu weex yi yëpp muy loxo muy naxu muy. muy london koona ca Gàmbi ci saawiya euh, Mawlana Cheikh Omar Touré euh, bañ fa wato yooyu téere dellu si nañ Medina Cheikh Ibrahim foofu lañ defee suñu suluk maanaam euh, muy tarbiyatu ruux foofu lañ maanaam jébbalee suñu bakkan xëy na genn góor gu ñuy wax Babacar Babacar Diouf mu yar muy maanaam li ñuy wax yar yar ñu ci yàlla ala kulli maanaam li ñuy wax tarbiyatu ruux may xam xam yàlla ala kulli xaal la ñu defee gannaaw ba jógee nañ fa laxas yëpp rek ci yokk am xam maanaam parce que toujours rek. pie yàlla bi dafay wax ne almin mazid te euh, ndaw ndaw li toujours ki bëgg xam-xam dafay wax dafay war di wax ne almin mazid ndax yow yàlla am nga ndollal pie yàlla bi nag toujours mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi xaatif di euh, di delloo kàdd bi naam wala day naa mazid hmm. moo tax ñu jógee foofu noonu ñëw fi Ndakaar ba ñëwee yàlla booy na ñëw góor gu ñuy wax a Coon Amar Ndiaye Euh, alhamdulilah si kana si si ay loxoom euh, yar nañu si ci ci tarbiya li ñuy wax maanaam taraqiya ak tëddali euh, maanaam xamal ñu lu bëree bëri daal ci yàlla ji ba yàlla def na am nañ foofu noonu li ñuy wax lijaasa maanaam ijaasa am ndigal ci joxe wi du tijaaniya ak maanaam tarbiya comme niñ ko kii yàlla kuli ci biir loolu yëpp nag Baye Abdoulaye Thiam mi ngi doon yëngatu ci li nga xamante ni moom moom ngeen ko ñëwal nii tey muy wàllu médecine traditionnelle ak wàllu yëngatu ci ñaan yàlla lépp nag ci alquran la sunna la ala kulli haalin ak ci plante yi yooyu yëpp ci xam-xam la ala kulli haal euh, yooyu yëpp ci Kaolack ci Médina ci euh, Gambie euh, ci Ndakaaru yooyu yëpp ci loolu lañ passé suñu dund ala kulli haal ba ba suñ joon yàllaay tey daal Baye Abdoulaye ci jàng ak jàngale maanaam si la si la sax ba su fi mu toll nii si jàng ak jàngale lañ nekk ala kulli haalin. kon su la déggee sëriñ nga nga xamante ni waxtu wi da yàlla loolu dogal dañuy def comme liggéey bii nii dañuy def itam maanaam di joxe ay tarbiya ay wirdo tijaan yooyu noonu yëpp dañ koy def ala kulli haalin ci ndigal lu wér mm-hmm. incha allah ah, ñu bëggoon a xam tey euh, Baye Ablaye Thiam lan mooy li nga xamante ni moo ko neex ba mu bëgg a dugg ba mu ci faj fajam cosaan boole nag nekk bu nga xamante ni day ñaan waaw ala kulli haalin euh, lépp rek ci ndogalu borom bi tabaraka wa taala la te ñu ngi koy nangu di sante yàlla ala kulli parce que jaam bu nekk rek lépp li nga xamante ni moom la war a présenté wu fii ci kaw suuf jiitu woon na ko avant juddoom ala kulli xaalin alquran wax nañu ko wali kulli wijhatin huwa mawliha fastabiqul xayraati aynama takun yati bikumullahu jamian kon doomu bu nekk rek avant juddoom yàlla préparé woon na ko dundam li nga xamante ni moom la war a doon li nga xam ne moom la war a réaliser ci ci dundam ci dund bu gàtt boobu noonu ci ci kaw suuf ala kulli xaalin ñu santee ko yàlla nag depuis ñu nekk ci daara ji ñun wàllu maanaam euh, gëstu ay secret comme ni li ngi ñuy laaj ni gëstu ay secret wàllu xam-xam boobu daf ñu yàgg ñor daf ñu yàgg neex ala kulli xaalim ñu nekk ci daara ji moo tax loolu xëy na moom moo moo yeewu suñu jëmm euh, ala kulli ñu ñu ñu continuer loolu ba yàlla may ñu ci ay may ala kulli xaalim waaw euh, jàng nañ maanaam we xeeti euh, xam-xam yëpp moo xam ci wàllu turu yàlla yi la moo xam ci wàllu dagg xaatim la musallas mu rabban mu xamas ba ci mu xasar yooyu noonu yëpp jàng nañ ko ala kulli ci jàngin bu wér jàngin bu leer jàng nañu ci maanaam ci wàllu ren ak sunguf yi nii ngay gis nii jàng nañ ci garab bi boo demee ni nga koy utee ala kulli xalin euh, ni ngay ni ngay jëlee ci moom ci garab bi nu mu tudd xeeti garab yëpp ala kulli yooyu xam nañ ko muy ci li ko dalee ci xob bi ba ci suuf ci ren bi yooyu noonu yëpp jàng nañ ko xam nañ ko te am nañ si ay njëriñ yu kii xam naa incha allah si kanam danañu si yaatal waaye daal ci gàttal daal euh, li tax ñu taamu métier bii nii mooy ne dafa nekk suñu amour dañ ko yàgg bëgg lan mooy ñaan ndax suñu déggoo léegi ni jóg di ñaan bari na waaye nag lan mooy dëgg-dëgg ñaan lan mooy ñaan. waa ñaan ala kulli xaalin loolu ndigalu borom bi la tabaaraka wa taala parce que yàlla wax na ci alquran ne adooni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen te wax na ci alquran ba tey yontu yàlla moom sallallahu alayhi wa ne ko waxal say jaam ne leen ñu ma la laajee man fekkee dañ may woo wax leen ne leen man ku jege laa deng wa isa salak abadi fa inni kharibun fekente ne jami dañ mala laaj wax len ne leen man jege lol deng wax na fenen ne inno aqrabu min habli warid mom mo gën jege sa buumu xol kon koku ku jege la ala kulli halim buñ mo oyé man dina len uyu deng ujibu dahwata dahi isa dahani kon ñaan yàlla lolou yàlla moko santane deng te yontu sallallahu alayhi wasallam wax na ci ñaan mu ne adduwaawu silaaul mu'min mu ñaan moy ngandayu julit bi kon ñun luñu war rek moy ñaan dégg nga parce que yàlla mi ngi wax ci mi ngi wax ci hadisul qudsi ne wala wala maarifatu maa xalaqal insan man damay wax ne nag toujours nit ki boo koy ñaan day fekk nga xam ay maamam ay ay ay kiyam ay sistilam ala kulli xalim yaa ngi bëgg yaa ngi xam li mu bëgg a wax maanaam toujours nit ki boo ko bëggee ñaan il faut nga bégal ko ci ay tàgg ak yooyu noonu bu ko defee pour mu am tàllee ko xol pour man la man la man laa jox leen kii kon yàlla dimbale nañu xam nañ ko ci zat xam nañ ko ci ismu xam nañ ko ci sifa manam mbollem tëjil tëjili bo xamanteni feñu nañu ko rek ñun xamnañ ne ki borom bi la tabaaraka wa taala. ndax amna ay sart yo xamanteni bi ki ñaan war na ko làmboo. bien sûr ay sart yu yu yu ci ki sax parce que man dama koy wax toujours samay waxtaan. Hmm. damay wax ne président Macky Sall non audience pour mu wala reservoir hmm. ci colaay dana am no mel. Hmm. ci comportement dana am no mel. ci wax dana am no mel. kon ana borom bi tabaaraka wa taala nga ne da nga bëgg jël ak mom audience. mo xam sa soxlaay bop la wala soxlaay jaamu yalla yi. kon il faut am na noo war a comporté woo am na noo war a comporté ci ci ci ci colaay am na noo war a comporté woo ci comportement am na noo war a euh, comporté woo ci maanaam ci wax laaj nag nga xam li nga xamante ni jumtukaay yi nga xamante ni moom nga moom nga koy jëlee audience moom nga koy ooyee ala kulli xaal. ay jumtukaay yoo xamante ni moom ngay yore. amul sikk. yu mel ni que. yu mel ni que turu yàlla yi si la. Hmm. lu mel ni alquranul karim si la. Hmm. te lépp nag al alquranul karim moom moo mooy mooy base bi ala kulli xaal. Hmm. tur yàlla yi yëpp euh, yàlla am na wala laay asmaul husna faduma yàlla am na ay tur nee nañ ko ci oo te buñ ko ci ooyee danañ ko uyu léegi nag tur yooyu nag nekku ne da ngay dem rek nga jënd dem ci marché bi nga fekk benn tur yàlla rek nga jënd ko rek nga ñëw nga nga sikkar ko la neex parce que Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu dafay wax ne asirru fil hadat mbóot toujours day dox ci euh, maanaam kii lim dégg nga ba pare it waxaan na ne euh, asirru yasri maal isnu dégg nga mbóot bu nekk rek la koy doxal mooy ndigal boo seetloo yonent bi sallallahu alayhi yàlla wax na ko ne wa daan laay bi isni ooteel nga jëm ci borom bi tabaaraka wa taala waaye nag ci sama ndigal dangay gis ne bu amutoon ndigal kon xëy na li xew ni yëpp du xew ala kulli kon mbir yi yëpp dafay dox ci kaw ndigal gannaaw boo ci amee ndigal na nga xam wala sax boo ko xamee xam gi rek doyut xam turu yàlla bi nga jàng ko xam istixraajam fii la génnee nangam nangam loolu doyut dafa da nga war a kowel si itte nga xam bu baax a baax a baax a baax turu yàlla bi maanaam lim laaj yëpp parce que turu bi am na istixraaj am na sarax yu mu war a génnee bu fekkee da ko war a tuura deree nga xam bu fekkente ne da ko war a génnee ay sarax ak lu mu mën a doon nga xam mm-hmm. dégg nga mm-hmm. kon xam ngi da ci am solo boo xamee nag nga am ci ndigal kon yow da nga ko dañ ko tarbiyu su ma yeboo ne lu yàgg sax mm. parce que toujours dama koy wax damay wax ne teraanga yonent bi sallallahu wax na ko teraanga nekkut maanaam tàndarma boo xamante ni da ngay dem rek nga witt ñëw lekk waaw il faut que rek teraanga nga jaar ci ay ay ay kii bu fekkente ne tey euh, ci ci ab dëkk la nekk yoon bi da ngay gis ne dafay lëndëm dafay bëri xaaxaan dafay bëri ay pakk hmm. bu fekkente ne amoo courage bi rek doo si jot hmm. doo jot si teraanga bi muy nag ci wàllu baatin muy ci wàllu zahir tey bu ñu la jëloon benn kilifa zahir tey hmm. ñu koy soow ak lu mu am ay mayam lu mu ngand ngand bula bula netli won la tay rek nga sujud nga yemu ci borom tawar ko taala manam hmm. lim jankonté ci ciono. Batin ba non la. Hmm. nañ jël rek par exemple suñu mam Serigne Touba. Hmm. xolal lim daj tay xolal liko yalla fayé han ah? kon nga xamné teranga nekkut loo da ngay ñew rek garab go xam da ngay yéere ñew sak rek lek lool dafa yomb. kon lu nekk rek coono la. man dama kay wax sax toujours ci prière yi yalla ñu jullil ko ak ñu ñàkk koo jullil kooku amul dolliwul ci moom dara wàññiwul ci moom dara yokku ko dara waaye nag sport boobu ngay def maanaam coono boobu ngay coono ngay sonn mu xam ne lii moom moo tax nga di ko def loolu mooy njariñ mooy njariñ bi moom moom la ñu soxla kon lu nekk rek da nga koy tarbiya nga sonn ci benn mag ñi sax dañ koy wax ala kulli halin tur yàlla yi nii euh, il faut nga am ko ci ci ci ñuqi mbaa ñaq mm-hmm. soit nga am sa xaalis nga génnee joxe ñu jox la mm. wala nga am nga ñaqal nit ki mm. bu njëkk mag ñi dañ naan bay ay tool dangay dem bayal la ay at mm. soog di la jox benn tur yàlla ah, suñ seetloo euh, tey dégg nañ euh, fajum cosaan itam nga nga ciy yëngu mm-hmm. ak euh, ñaan ñaar yooyu lan mu jamono ji toll nañ foo xamante ni mm-hmm. kenn xàmmeetul lenn ñëpp jóg nañ jëm si ci li nga xamante ni mooy ñaan fajum cosaan di ci gëlëmal nit ñi bu baax a baax a baax mu bëggoon tey nga leeral ñu mm-hmm. diggante ñaan ak fajum cosaan waaw nga xamante ni dañ ko nemmeeku léegi nit ñi di ko def nga xam dafa bari ma nga xam ne mhm. euh, ta duñ ko tarbiyewu duñ dem fenn dañuy jekki-jekki rek ubbi seen dara mhm. nii damay fajkat fajkatu cosaan la dagg seen i reen ak seen i kii jaxase mhm. indi di jox nit ñi ñuy naan waaw ala kulli lu bari la ci jamono bi tey parce que toujours doomu aadama dafa a roy dafa mën a toppandoo tax toujours rek euh, war nañ maanaam exemple yi nga xamante ni ay exemplaire lañ maanaam dañuy war di jël ci ñoom war nañuy di joxe maanaam image bu baax Euh, éducation bu baax. parce que li ñuy jël ci moom li ñuy jël ci ñoom ñu mu mën a nekk mu mën a nekk njariñ ala kulli haalin. Baye Niass dafay wax ne doomu aadama yàlla daf ko bind ci toppandoo. tey bu fekkente ne man sonn naa dem jàngi lasraal ñëw toog xam li ma war a xam yow ñëw ñëw toog moo xam ren yi la moo xam wàllu tur yàlla moo xam xaatim la ñëw toog. woote keneen sama moroom gis ne lii kat yàlla mu ma ciy defal xéewal. te ne pourquoi pas ma def ni comme comme Thiam. Hmm. même bu fekkente ne jàngu ko de dafay wax ne pourquoi pas ma def ni comme Thiam. Hmm. maanaam léegi yontu bi sallallahu alayhi li mu waxoon rek mu jug mu jug jamono ci lañ nekk. Hmm. ragal yàlla néew na lool fi mu toll nii. xol yàqu nañ. dégg nga moo tax yu bëri nga ciy gis ni danga koy gis waaye nag loolu laa wa du ñombeef maanaam métier boo dem rek muy ci wàllu traditionnel bi ni muy ci moderne bi muy ci tailleur bi. ouvrier yu mën a doon rek boo demee da nga si gis ñuy jubal ak ñu jàdd yoon bi hmm. dégg nga wax bi hmm. da nga si am ñoo xamante ni dañuy jubal kocc waaye da nga si gis ñoo xamante dañoo wàcc yoon bi yow da ngay faj cosaan man damay faj cosaan waaw ala kulli alin euh, kon dañuy dañuy dañuy tënk rek hmm. dégg nga parce que mooy comme li nga ma laaj léegi maanaam ouvrier boo dem rek da ko fekk ñoo xamante dañuy jubal ñii dañoo jàdd yoon ala kulli xalin loolu nag yalla mom mo kelul dafa wax ni yalla dafa wax ci alquran ne walaw sa Allah la ja'alna ummatan wahid hmm. bu nekkoon bu nekkoon yalla mu def xet bi yëpp ñu nekk ben. ben ben am qasdu ben benn way hmm. ñep jubal mais su boobaa loolu du ki il faut que rek euh, comme ni ko Bañes di euh ku deug al kamilu man qad jamaa baynal maqaamay Yalla hmm. yàlla toujours rek ci ci point boobu ci la taxaw il faut que rek am ño xamanteni ñu mat lañ ay kamil lañ am ño xamanteni ay naaxis lañ dégg su ko defee si ngay xamé lu am jariñ ak li bon waye bu lepp bokkoon bax kon do xam jariñu bax lan lan moy ki do xam natiija bi dal comprendre nga bu ko defé lol motax waye lu way def rek sa bop man amila salian fali nafsi wa man asafa alayha deng kon ci gàttal rek manam euh, ñi nga xamanteni amna am xamni ay safour taxi man lañ dañuy dem ci taxi bi doxul rek ñu dem ci ci ci marabu bi mm. ne mo gëna dox ño xamni ay retraité lañ dañuy kii rek am amuñu lu ñu jàpp rek ñu ne oote ne ay marabu lañ te ñooñu genre yooyu noonu du ñu am sax ñaari secret yu wér te fi mu toll nii sama sama mas gi lañuy la ñuy xool rek bu ñu amee benn client rek oola tag euh, amuloo fi secret nangam nangam wala bind nangam nangam rek ñu dem xamuñ bind sangam lu muy lu muy jariñ sax ci kii bi ala kulli mais ci gàttal daal loolu moom du du xarwa du xarwa am na ñoo xamante ni si njubal lañu nekk ñun lañ nekk ni dañ ko jàng sonn ci tarbiyu ko moo tax tey liñ ci am ñu ngi koy amalaa kulli haalin fii ci Sénégal ak ci bitim réew mm. yëpp ñu ngi jokkoo ak ñoom te kuñ ci jokkoo danga nga am courage boole ñëw sa mbokk boo xamante nii ko respecté lay doon hmm. kon ragal naa ne bu fekkente ne nekkuñ di gis natija ci li nga xamante nii ñu ngi koy jëflante ñoom kon duñ am courage di ñu booleek ay ñeneen nit alakuli xaalin hmm. kon ci gàttal daal maanaam laaj boobu moom foofu lañ siy kii ah, ah, ñu bëggoon xam Baye Serigne Thiam ndax moom euh, jamono yi ñu toll Baye Abdoulaye Thiam jamono yi ñu toll euh, yan façon jàngoro lay lay faj ak itam ndax da euh, dégg naa ku li nga wax ku koy wax yaakaar naa ñàkk da nga dugg xalwa toog yu mel noonu. du ko hmm. defal nit ñi. su amee jafe-jafe waaw alhamdulilah jàngoro yi danañ si lim tuuti rek lu mel ni émorite hmm. lu mel ni ndoxu siti euh, lu mel ni maanaam tension dañ koy traité lu mel ni maanaam euh, kii. Euh, hyper bi ak ak kii bi yëpp dañ koy dañ koy kii hypo bi hmm. dañ koy dañ koy traité lu mel ni itam diabète nga xam ne ni sonal na askan wi lool am na type am na type 2 yooyu yëpp dañ koy traité type 3 bi duñ ko kii àla kulli xaalin lu mel ni maanaam varicocèle day day gaari góor ñi euh, bu la bu la jàppee sa kii bi mën na la tere saw sax am na ñoo xamante ni dañ leen sondage bu ñuy saw hmm. loolu dañ koy traité àla kulli lu mel ni varis varicocèle góor ñi lay dal àla yi day yàq sa ndoxu mën yu ba tere la am doom hmm. ñu bëri ñu ngi am euh, sëy yu yàgg seen am doom loolu feebar boobu la ñu am loolu yi dañ koy traité hmm. dégg nga euh, ak yeneen yeneen i maladies yoo xamante ni comme hépatique am na A am na B yooyu noonu itam dañ koy traité dégg nga ak yenn maladies yi parce que yooyu rek lañ mën a lim waaye li ci ëpp daal jaamu yàlla boo xamante ni contacté nañu am tawat bu ñu contacté incha allah danañ jéem ci feebaram boobu suñu kemtalaay danañ jéem ci feebaram boobu noonu suñu kemtalaay dégg nga lu mel ni itam maanaam wàllu sexualité comme lu mel ni euh, impuissance sexuelle dafa sonal askan wi lu bëree bëri. néew kattan mm. am na éjaculation précoce am na itam faiblesse sexuelle. Mm. yooyu noonu yëpp dañ koy traité am na ici maanaam lu ñuy wax maanaam comme sàkkara bu bu gàtt. Mm. Euh, boobu itam dañ am nañ ci ay ay tegtal ala kulli xaalin parce que nit ñi dañu koy kii lu bëree bëri def nañ ci itte am nañ ci ay tegtal ay secret yoo xamante ni secret yu wér la képp koo xamante ni jokkoo nga ak ñun ci fànn boobu noonu incha allah euh, yaakaar naa ne dañ la si dañ la si jàppale bu baax a baax. waaw yaakaar naa ne après dana ñëw euh, présenter kii yii nii waaye itam comme xalwa boobu ngay wax itam dañ koy def dañ koy def lu bëree bëri fii ci biir réew mi léegoo léegi ñu soxla ñu euh, yenn ci régions yi wala ci kii yooyu noonu lu mel ni Thiès ak ay Mbour ak yooyu noonu dañ ko dañuy génn di ko def foofu noonu maanaam euh, xalwa moom dafa gën a supprier comme yenn yenn yenn kii yi maanaam xalwa toujours dañu ko def ci aajo boo xamante ni aajo bu rëy lay doon dégg nga comme ko xamne dafa wara taxawal entreprise wala ko xamante dafa nek chef de chef de personne de nga manam yu demee noonu daal euh, lañ koy lañ koy faral di ëpp di def. Hmm. xalwa nak buñ koy def moy pour rek moy xalwa limi firi moy wet moy hmm. wet wetal sa borom su boba sa beut bi mucc na ci boka euh, manam togn hmm. sa sa sa bakkan bi mucc na ci togn sa gémmiñ lamen bi mucc na ci togn sa tank bi sa loxoy ala kulli halin. da ngay gis ne kon jëm jooju nonu bu tawasulo ci borom bi rek manam moy gëna gaaw. looloo tax ñuy dugg xalwa da nga ko won daal maanaam moo a moo war a am yàlla dana ko yekkeewal waaw dana ci kii waaw parce que li tax ma ne bakkan bi dana or hmm. mooy ne am na yenn lekk yoo xamante ni boo duggee xalwa doo ko lekk doo ko lekk hmm. ay ganaar yu demee noonu yu am diw yi wala luy dund rek doo ko kii ay mbiskit presque ay ay fonde yii nii moom ngay ëpp looy dundee su ko defee kooku da gis ne dangay ngay toroxlu man toujours damay wax ne koor boo gisee yàlla santuñu ko am na lu tax secret secret koor yëpp bu ko découvrir woon kon jaamu yàlla faral di ko or parce que dañuy wax ni sax toujours maanaam euh, weeru promotion la. dégg loo si ñaan yàlla loo si jaam yàlla da day daal di kii dégg kon wàllu xalwa dañ ciy yëngatu bu baax a baax muy fii ak keneen koo xamante ni soxla nañu rek moo xam ci dëkk yi la même génn Sénégal sax loolu euh, ñu ngi siy yëngatu ala kulli xalim. Hmm, ku la bëggoon a contacter fooy fan lay jaar ba contacter la ba mën a euh, ànd ba nga mën koo defal xalwatu. waaw contacter yi comme adresse bi la ñuy préciser. Hmm. ñu ngi fii nii ci Parcelles Assainies unité 12. jàkkaarloo en face euh, mosquée Serigne Cheikh maanaam jumaay Serigne Cheikh bi fekkente ne xamu leen Serigne maanaam jàkk jàkk ji moom luñ siiwee la ñëpp xam nañ ko daanaka. Hmm. waaye camp Sapor bi yaakaar naa ñu bëri xam nañ ko. Hmm. camp Sapor fii nii boo ñëwee ba ci camp bi rek dangay laajte jumaay Serigne Cheikh bu ko defee boo ñëwee foofu noonu du laajte jar ngay euh, demandé yenn demande yu bëri yi boo ñëwee ba foofu rek boo duggee si jumaa ji rek boo wàcc laajtee Baye Abdoulaye Thiam euh, ñu ñu ñu tegtal la alaa kulli bu fekkente ne ay numéro yooyu ñu bëgg jotee. Hmm.

loolu dana gën a yombal ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew pour communication bi àla kulli xaal dégg nga am na itam numéro fixe 33 855 78 01 33 855 78 01 waaw am na itam Skype maanaam alaaji point thiam 23 dégg nga alaaji bi amul as boo koy bind da ngay def alaaji point thiam 23 boo ko defee yooyu noonu ay jumtukaay yoo xam ne ni bu ngeen si jokkoo ñun danañ ci mën a weccante ay kàddu bañ juboo inshallah lepp luñu wara ñu budé wa bitim rew itim toujours lolu euh, jar di euh euh insister fofu non bu baax baax mm-hmm. ci wàllu ni ñuy jëflante ak ñoom euh, lu melni poste mu ngi fi. Mm-hmm. Euh, express amna na fi mooy kii amna fi euh euh DSL amna fi yoy non yëpp ay jumtu way la yo xamanteni pour ñom la. Mm-hmm. te budé poste bi. gën saa bëri deux semaines la nga jot say bagages. am na sax ay femmes yoo xamante ni CP lañ leen tuddee. waaw ñoom dañuy def dem Europe euh, kii euh, Paris France wala Espagne wala itali Allemagne yooyu yëpp am na ba ci États-Unis kon ñooñu ay femmes la ñoo xamante ni dañuy ñëw fii def fi deux jours dem fee def deux jours wala semaine dem def fi def semaine. ñooñu noonu am nañ seen i contacts képp koo xamante ni maanaam tey nga ñu rek ñun danañ seet yoon bi nga xamante ni moo gën a gaaw. ak bi nga xamante ni moom moo gën a jàppandi ci yow ala kulli xaalim parce que yónnee yi du benn DHL moo gën a seer euh, poste bi moo gën a moo ci moo ci topp waaye bu fekkente ne jokkoo nañ daal yooyu yëpp ci koo waxtaan euh, danañ danañ danañ juboo euh, incha allah ndax sëñ sëñ Ablaye day yëngu moom tamit ba tey ci wàllu ñaan ko yëngu ci wàllu ñaan yaakaar naa ñàkkut ni sa xel dana dem ci ku bëgg ay këyit mu tëla nga bëgg a tukki mu tëla wala nga bëgg a dugg ci mbir mu jafe ndax loolu da nga ci faral di def ay ñaan. waaw yooyu dañ siy def ay ñaan ñi bëgg a tukki fii bari na loolu Sénégal euh, nit ñi dañu siy dikkal ci lu bëree bëri ñu ngi siy jàppale ay jaamu yàlla. Hmm. ñi nga xamante ni tukki nañ nekk bitim réew. kayit ku ne xam na ne boo ko amul ci réew tubaab hmm. maanaam li nga fay bëgg pour mu sotti dana jafe. Hmm. muy liggéey muy yooyu noonu waaye ñu nekk foofu noonu itam ci wàllu kayit loolu dañ ciy yëngatu bu baax a baax am na si ñoo xamante ni dañ fay bëgg comme soxna si tubaab pour euh, seen kayit gën a mën a yomb. am na ñoo xam dañ koy def ngir kayri rek am na ñoo xam dañ koy def ngir fi sabilillah dama si joko ñu bari bari yoyu ñing ci dimbalé si dimbale jaamu yàlla ala kulli hal bon euh, comme ci lu nekk itam comme walu réparer digënté comme euh, yi ngeen gis ni ay ay ay ay ki la yo xamanteni dañ ci liggéey ay fas mm. waaw comme ñu la wax rek mm. euh, xam-xam mom mm. boy boy ki na nga yaatal manam nga baña nga baña gattañ lu rek ne ci alcorane rek comme niñ ko kiyee ci marabu coranique bi parce que alxuraan moo ëmb lépp. moo dëgg waaw alxuraan moo ëmb lépp yii yëpp ñëw na ala kulli xaalin. muy wàllu fas comme diggante yoo xamante nii dafa am jafe-jafe. Mm. moo xam ci ñu ñu ñu xas ba bañ fa dencante ba pare la wala ñoo xam ne dañoo bëgg a dencante. dañoo bëgg a dencante ala kulli yi am na ci yoo xamante ni pour wàllu ku jëkkëram dem la. Mm. bëri na ci koo xamante ni jëkkëram dafa dem bàyyi ko topp beneen jigéen. Mm. waaw yooyu noonu dañ ciy def ay mbir yoo xamante ni sa ndigg nga koy takk boo ko takkee incha allah euh, góor gi dana dellu ci waat te bu dellu see dina la bëgg mbëggeel gu tat gu raw gi ngeen nekkee woon. Hmm. kon nga pexeem jigéen ju lamb. waaw maa ngi ñëw am na ci. Hmm. waaw jigéen boo xamante ni mësul sëy hmm. mësul dégg alxayri. am na itam ci fas yi nii boo xamante ni dañ koy defal. Euh, da koy takk ci ndigam. du teeg du toog vingt neuf jours yoo xamante ni déggul al alxayri. <laughs> du toog vingt vingt neuf jours yoo xamante ni déggul alxayri. kii kay dañ ko jar bu def ko def ko gis ay résultat moo tax tey na na na naa naa kii occasion la. mané na ko wané ni nit ñi nit ñi gën ko découvrir manam gën ko gis. ko xamné ni musul sey na ñew rek mo xam la ko ko rap la wala dañ ko liggé wala wala chat la ci mom wala lu mëna doon rek na ñew bu ñëwee inshallah allah ko défalé fas gëni nii dana dégg alxeer même rap ak chat da koy dindi ndax Rap mom yaakaar sonal Sénégal. rap dañ koy dindi dañuy dindi rap, chat itim waxuma né dañ koy dindi parce que cat euh, dafa nekk loo xamante ni lu lu doy waar la mm-hmm. dégg nga loolu yontu bi sallallahu alayhi wax na ci te yontu bi sallallahu alayhi ci boppam moom cat jàpp na ko mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. ku jàng tuuti xam ne yontu bi sallallahu alayhi wasallam jàpp na ko ah, am na benn giir boo xamante ni dafa nekkoon màkk yéeféer yi bi nga xamante ni fexeel nañ yonent bi ci paxe bu bu nekk seen pexe antuwut dañoo dem ci giir googu noonu pour ñu bëgg a faagagal yonent bi benn giir la woon boo xamante ni ñoom bu ñu la bëggee toroxal dañuy xiifal ñetti fan suñu xiifalee ñetti fan buñ génnee nag ci troisième jour ba dañ lay topp rek lu ñu gis ci yow rek tudd ko luñ gis ci yow tudd ko luñ gis ci yow tudd ko mhm. loolu moo ñu def ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu jàpp ko mu feebar ba si la euh, aaya boobu noonu ba in yakkaadu la wàccee ala kulli haalin kon ñu ngi jox ba in yakkaadu itim ñi nga képp koo xamante ni yaa ngi seetaan nga man ko boo ko jàngee wala nga jub mbooloo boo xamante ni maanaam sa fit dalul ci ñoom mhm. boo ko jàngee insha allah yàlla dana la musal ci seenu ay mhm. muy wàllu li ñuy tuddee niti demo nit guddeek yooyu noonu way ñakkaadu boo ko jàngee incha allah yàlla dina la musal ci kii euh, ba tey itam maanaam ci wàllu fas yi rek. Mm. wala wàllu njabar ba tey. Mm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm. te toujours damay wax ne yonent bi lu ko lu ko dar rek maanaam du du coobareem wala boog nekkul loo xamante ni moo ko defee benn yoon baax na ñetti yoon yi baax na juróom-ñaari yoon yi boo ko defee baax na dégg waaye daal na nga faxe boo jubee mbooloo bi rek mm-hmm. wala sax nga toog rek tiit nii yaakaar ne maanaam ay nit dañuy wax ci yow wala yu demee noonu boo ko jàngee incha allah yàlla dina la musal ci ay ay ñooñu noonu ala kulli haalin mm-hmm. dégg nga euh, ci wàllu kii bi kon loolu jàpp na yontu bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. ci wàllu njabar loolu dañ siy dindi dañ koy dañ koy dindi si jaamu yàlla yi parce que njabar itam jàpp na yontu bi sallallahu alayhi wasallam wax ne lu dal yontu bi rek loolu ñàngale la ci askan wi ci umma bi dégg nga ñàngale euh, la ci umma bi parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko wax ne ko euh, wallaahu yaxsimu ko mina naas mm. man maa lay sàmm ci ayu nit ñi maa mm. maa lay ci nit ñi mm. kon du ko du ko wax loolu pare di ko di ko seetaan nit ñi di ko kii waaye loolu ay jàngale la pour nit ñi mën a fagaru comprendre parce que wax na ne alwiqaayatu xayru mina alxalaaj fagaru moo gën faju dégg nga euh, yonent bi euh, benn benn waay bu nekkoon mag effaire la fas na yonent bi sallallahu alayhi wasallam fas ko nii rek Euh, fekk dafa dafa ñaanon ci karaw karaw bopam mhm. boole ko lool non mu don fas ak ay pusa fas yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci juroom euh, fukki pas-pas ak ben yakarna fukki pas-pas ak euh ba loolu japp yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mu mhm. fas yaram bi yeb mu tëdd. malaaka yi ñew ne ah ki lu dal ñu ne ki dañ ko fajj dañ ko fajj manam dañ ko liggey mhm. ana liggey bi fu mu nekk ñu tektal ci ben teen bu mu nekk. ñu dem indi indi andi liggéey bi génnee ko fàkk ñu ngi ko dugal ci benn teen teg ci aw doj. Mm-hmm. xam lu doy waar. ñu génnee ko indi ko ci kanamam ñaari saar yi muy maam ay sa tey nii moom lañ ko tuddee. Mm-hmm. muy falax ak naasi. Mm-hmm. loolu it danaa si jox gars yi euh, ku xëy nga jàng ko mucc nga ci ayu ayu ayu doomu aadama ala kulli xalin falaxi ak naasi rek. da ngay def fatiha falaxi ak naasi wala boo ko mënee sa cinq prières yi heure boo jullee rek nga def fatiha falaxi ak naasi. Euh, yàlla dana la musal ci lu bëree bëri ci seen seen ay ala kulli halim léegi Fatiha kii Falaq ak Naas mi ngi nekk fukki aaya ak benn. Mm. benn bi juróomi aaya la benn bi juróom-benn aaya la. Mm. yonent bi di jàng par aaya aaya bu mu jàng rek benn pas-pas tekkeeku. Mm. nga gis yaram bi di commencé naay. bu mu mu jàng rek benn pas-pas tekkeeku ba fukki pas-pas ak ñaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam mel na meloon. xam nga loolu jàngale la laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasan loolu alquran wax am ngeen benn royukaay boo xamante ni bu rafet la na ngeen ko jàpp dégg nga mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lépp loo xamante ni dal na yonent bi maanaam ñàngale la ci ñun mm-hmm. pour rek ñu fagaru dégg nga jigéen boobu noonu nga doon wax naan mosul sëy suñ ko defalee ci fas yi incha allah dana dégg alxayri mm-hmm. comme li ñu wax léegi ci jigéen bi bu fekkente ne góor gi dafa daw bàyyi ko mm-hmm. buñ ko fasalee mu takku ci ndigam dana dellu siwaat te bu ñëwee dana ko mbëgg bëgg mbëggeel gu raw gañ nekkee woon ni amee ci góor ñi noonu amee ci jigéen ñi bu fekkente ni góor gi jabaram dafa dafa dem bàyyi ko ci loo xamante ni teguwut ci benn sa kii bu ñëwee itam bu ñu ko defalee incha allah jabaram dina ñëwaat te bu ñëwaatee dootu génn kër gi ba ba muy génn àdduna mm. dégg nga ay fas itam dañ koy def comme ñoo xamante ni dañoo bëgg boor ci nit mm. parce que nekkul ñëpp a man te am na ñoo xam ne dañoo man waaye xamuñ xamuñ bu ko defee bu fekkente ne sa mbokk la nga bëgg mu lebal la benn somme wala yu demee noonu wala sax koo xamante ne danga am da am da am ci nit bor maanaam dañ la war a fay mm. ñaar yooyu yëpp bu mu ci doon boo ñëwee incha allah dañ la si jàppale mm. dégg nga euh, kon loolu ci ci kii yu ñu doon yu ñu doon leeral la mm. ci wàllu kii bi su fekkee butéel yi waaw bu fekkee butéel yi nii muy wàllu maladie yi ñu doon laaj léegi muy wàllu hémorroïde ak ndoxu siti comme genre yi lañ koy fajee dégg danañ koy faje itam ci wàllu comme impuissance sexuelle bi hmm. wala éjaculation précoce bi yii nii danañ ko ci faje maanaam ay exemple yu ñu teg nii rek hmm. dégg euh, bu dee bii la itam hmm. maanaam moom la ñuy composé ak bii nii maanaam kii euh, à base de plante la plante lañ ko liggéeyee ñun la suñuy recherche suñuy recherche la ñu ñoo ko def yaa ko yaa ko fi lijjanti waaw te liggéey bu jaar yoon la itam maanaam tooguñ toog rek xalaat ko nii def ko waaye ci xam-xam lañ ko defee oo it ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu jaxase. Mm. maanaam euh, boole composé mm. maanaam pour kii bi mën a mën a équilibre. Mm. Hmm? dosage yi mën a yem. ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc si loolu ñu oo leen ñu jàppale ñu si liggéey bi ba tey ñu defar produit bii nii. moom la ñuy tuddee maanaam li ñi nga xamante ni yàlla dafa def seen sàkkara dafa dafa kii dafa ndaw. dafa ndaw kon lii nii képp koo xamante ni yàlla euh, nattu na la nga am loolu. boo jokkoo ñun incha allah dañ lay jox produit bi nii nga di ko diw ki sàkkara euh, sunguf bii nii moom lañ lay filtre benn ndox saafara nga di ko naan sooy diw kii bi sa sàkkara nga ngay diw lii ngay naan lii hmm. incha allah ci diir bu gàtt rek hmm. di nga am li nga xamante ni moom mooy sa càkkutéef hmm. kon lii euh, lu lu am solo la te nit ñi yàgg nañu di ñu ko tawat ala kulli xaalin waaye rek yàkkamtiwuñu woon ñu kowel suñu yitte suñu suñu gëstu ba yàlla dimbali ñu am ci ay mbir yu wér secret yu wér. Hmm. yoo xamante ni buñ ko joxee jaamu yàlla yi danañ ci gis seen bopp. te yaa ngi ciy gis ay résultat ci ñu ngi koy ñu ngi gis ay résultats yu bëri. moo tey ñu defaale ko occasion comme que lii. Hmm. occasion la ñu defaale ko comme nit ñi gën ko découvrir gën ko gën ko gis ala kulli hmm. waaw mooy comme yii nii daal waaw bon yii nii yëpp ay ay mbir la yoo xamante ni euh, yëpp ci xam-xam la tegu ala kulli waaw yii. yooyu itam ay biir la yoo xamante ni ay mbir la yoo xamante ni moom ci wàllu ubbeeku lay dox. waaw ci wàllu ubbeeku ci ci lay dox. waaw moom dañ koy booleeg itam maanaam ay composant ci garab yi. lu mel ni ay ren ki ay yenn ci sunguf yi lu mel ni ci ay xob yi ak ay ay parfum yooyu noonu yëpp dina ànd ak moom ak li ñuy wax poudre xaalis dina ci ànd. boo ko defee moom tamit wàllu ubbeeku la euh, wàllu bayra la itam day dox ci bayra parce que gis nga xaatim bi suy na lañ ko daggee waaw te suy na ku nekk xam na ne ci ci bayra lay dox boo boo firee aaya bi rek da nga dégg maanaam parce que toujours dañuy wax ne secret bu ñu la ko joxee da ngay xool maanaaw maanaawu kii ba bu dee alquran la nga seet maanaa ba bu dëppoog li ñu la ko joxee rek xamal ne loolu la waaw te kii am suy na lañ daggee xatim bi dugal ci ay aaya yoo xamante ni aaya ubbeeku la ak aaya taxsin maanaam musluwaay boo gisee fii basmala lañ ko kiyee basmala lu nekk la wa alqaytu ci wàllu muhabba lay dox fii jiidiha ci wàllu muhabba lay dox dégg nga gis nga ko nii noonu lañ ko noonu lañ ko liggéeyee muy ci anam woo xamante ni itam bu mucc ayib la euh, ñu ngi koy jox ay jaamu yàlla te ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax. lii liggéey bi métti jot ko jot ko jafe. waaw métti na jot ko bi jafe na jafewul. Hmm. parce que jafe na ci ki ko am. Hmm. jafewul kon ci ki ko am. Hmm. waaye jafe na ci ki ko amul. waaye nag comme ni ñu waxee rek ñun. Euh, xàmmeewuñ ki nga xamante ni ku am la ak ku ñàkk la mm-hmm. ñu ngi dimbalee ay jaamu yàlla yu bëree bëri ci seen wàllu wërsëg wu tëju mm-hmm. wala seen wàllu ay jafe-jafe yu ñu jànkantoog seen yaram yooyu ñu ngi ciy dimbale ay jaamu yàlla mm-hmm. am na ñoo xamante ni dañ leen dimbale jox leen suñuy bagage te duñu jox benn dërëm dañ koy def fii dañ koy def bitim réew yàlla seede moo seede lii may wax bitim réew yónnee naa fa ay nit ay bagage ay bagage ay yooni yoon mësuguma lekk seen dërëm maanaam day day nekk ci loo xamante ni luñ lu ñu wax la wala xamante boo xamante ni xamante bu bu bu bu kii la bu rafet la bu ko defee mu yéene ma lu nekk ma yéene ku lu nekk man lépp lu ma xam loo xamante ni da koy jariñ luy dindi gàllankoor ci moom loo xamante ni dana ko yóbbu ci kanam bu ko defee dañ ko koy daal di defal ñu ngi koy defal ay jaamu yàlla. kii nag moom moom mboolem mbooleem ku bëgg ku bëgg nguur rek ku bëgg falu. ñun mboolem ku rek maanaam moom la ñuy defal li ala kulli waaw gis nga ko nii mbir la boo xamante ni mbir bu mbir bu yéeme la eko mbir la boo xamante ni mbir bu yéeme la képp koo xamante ni bëgg na falu bi maanaam moo xam président la wala nga nekk bëgg nekk ministre wala ci wàllu police nga bëgg nekk chef wala nga bëgg nekk directeur société Euh, wala mo xam da ngay politique nga bëgg ñu fal ben poste hmm wala dal nga nek ben chef chef de service nga bëgg am fa am fa am fa nguur pouvoir yi ci ci yole do ala kulli halin, manam duñ ko defal ko xamanteni ni nekkuloo ci dara dal mm. dalay gañ mm. dalay gañ manam kiñ koy defal dal dana dana dana dana fekk buñ ko ko defalé mom maqama bi yëpp dana ko mëna téggo waaw parce que képp koo xamante ni da nga oote maxaama boo xamante ni du sa maxaama su boobaa coono maxaama bi wala musiba maxaama bi mën na la kii maanaam euh, mbugalu mbugalu maxaama bi mën na la dal su boobaa waaw lii ci alquran la gis nga xaatim bi ni mulku la xam nga ci saar yi téeméeri saar la ak fukk ak ñeent am na bu ñuy wax surtout mulki mulki mooy firi nguur xam nga maa lay wax léegi ne la secret buñ la ko joxee rek seetal maanaam maanaawu secret bi bu dëppoog li la ko joxee rek xamal ne maanaam loolu mooy secret bi kii xaatimu mulku la dégg nga lañ ko lañ ko dugal nii ba mu fees mu am ay alam nasara ak yeneen i mbir waaw dañ koy wane nii rek mais du nekk dañuy wax si siru bi yëpp parce que siru laa la la laa yenaalu indal ijhaar maanaam duñ ko am fag biral dégg nga te itam yonent bi sallallahu alayhi wax ne ne man malaka amruhu malaka siruhu képp koo xamante ni nëbbu nga sa sa mbir rek sa mbóot nga daal di moom secret ba kon dañ koy kii nii présenté ko nii rek mais nekkul loo xamante ni li ci li ci aju yëpp moom la ñuy wax. te yi am na yu muy àndal. te yi muy àndal bu ñu la ko waxee rek nga xam ne maanaam dëppoo na ak secret bi loolu sax. Hmm. waaw kii daal képp koo xamante ni bëgg nga rek falu. Hmm. am poste am am am grade. kii loolu loolu lañ koy defal te bu fekkente ne da ngay yëngatu sax ci genre yooyu noonu comme politique. te àgguloo niveau boo xamante ni foofu nga war a falo duñ la ko jox. gannaaw mu ñàkk ñoo leer waaye bu ñu leeree la ko jox. Hmm. parce que coono bi nga ciy am ñun mën nañ ci am bakkaar. loolu moo tax. duñ ko duñ ko duñ ko kii ala kulli xaalin muy mbir bu yéeme ni waaw gis nga ko ni ay lii nasru min allahi fatum xarib waaw waaw jarul jarul jarul kii daal jarul jarul jarul jarul kii ala kulli xaalin euh, jarul kii ala ko defee yi ay mbir la yoo xamante ni sëñ bi dañ ci jàmpalante ak jaami yàlla yi muy fii ci Sénégal ak ci biti Sénégal yëpp waaw parce que nag mbir bi ñu ngi ciy bëgg a yàgg ñu ngi ciy bëgg yàgg te itam ñu ngi ciy bëgg a def jaloore du du du du ndamu du dara waaye rek comme li lim ñu wax wa amaa bi ni'mati rabbika fahaddis xéewal gi la sa borom defal nga waxtaanee ko loolu nekkul lu aay dégg te loolu itam sant yàlla la nga waxtaanee xéew xéewal bi la yàlla defal nga waxtaanee ko kooku sant yàlla la te wax dëgg yàlla lii yëpp euh, sant yàlla la rek ala kulli xaal kon daal euh, même ci wàllu xeetu jaaru itam dañ ciy yëngatu dégg nga wàllu xeetu ndomba yooyu noonu yëpp dañ ciy yëngatu jaaro yi pour wàllu ubbeeku la bayra la koom-koom la dégg nit ñi dañ la jublu ba pare dina maye parole ba waxee nit ñi déglu la xam nga loolu baax na ci ab politicien yi baax na ci ñi nga xamante ni dañuy taxaw ci yenn public yi waaw euh, jaaro bi dañ koy liggéey téere xànjar la maanaam ñetti façon la xaalis la ak euh, lii përëm la am na xaalis am na itam maanaam euh, xànjar kii pour wàllu kaaraange la parce que dañ koy defar ci ñaari façon mo xaliss bi ni dañ koy defar ci ñaari façon hmm. parce que ku ne xam xaliss mo gëna gën a hmm hmm waaw xaliss mo gëna a seer përëm kii pour walu karangé la mom ci loolu rek lay dox karangé hmm xam nga amna amna ndom bu ñuy défar bu ñuy tuddé walu mag wax ne mag ñi dañoo wax ne moy walu nak walu nak walu nak hmm. moy moy moy nak bu ñu ne déedéet waxuñu wëllu nag de wëllu mag la. wëllu mag maanaam lu lu mag la. Hmm. waaye ñëpp siiwee nañ ci ne wëllu mag la. Hmm. wëllu wu mag. Hmm. maanaam nag bu mag. moom lañ koy kii am na yenn barab yoo dem fii tey si këri diine yi muy ndomb googu noonu da nga joxe xaalis bu bëree bëri nga soog di ko am. dañ koy defar kii kii. ci loolu lay dox moom tamit. ci wàllu kaaraange la comme musluwaay wàllu protéger wu rek. moo xam làmmiñ la moo xam liggéey la moo xam yéene bu bon la moo xam yenn musiba yi la comme tukki euh, euh, am am am ndog ci yoon bi yu demee noonu walla xeetu kaaraange daal. Mm-hmm. dégg nga kii boo ko takkee boo ko amee su ma yeboon ne la mën nga tekki mboolem mboolem ndomb yi nga amoon wala téere yi nga amoon moom rek doy na kaaraange. doy na kaaraange moom rek doy na kaaraange ti lépp nag à base de Coran la. Mm. ah al Coran la turu yàlla la. waaw bu ko defee lii xaalis bi la lii itam përëm bi la waaw comme li ngay wax léegi rek am nañu néew kattan. Mhm. am na ñoo xam ne dañoo am kattan macha allah. Mhm. voilà bu ko defee ki nga xamante ni amul kattanu kii bi. Mhm. mu daal di def bii nii ah euh, li li biir di jariñ rek loolu lay jariñ. maanaam kii dafa gën a kii rek parce que xaalis yi boppam rek moom tamit kaaraange la. kaaraange la dëgg la xaalis rek. ñoo xamante ni dañuy defar daaru xaalis du saa ñu def ci benn mystique. kaaraange la waaw lii itam ala kulli kaaraange la. fii nag moom pour xale yi jàng la moom moom la ñuy wax kànjar hmm. dañuy gis ñu bari dañ koy takkal seeni doom dañ ciy liggéey benn secret boo xamante ni xale bi lu mu jàng hmm. maanaam dana des ci moom du ko fàtte hmm. waaw maanaam dina gaawal euh, kii bi mu mémorisé maanaam mokkal dina di bu mokkalee dina fa dina fa dina fa des te itam kaaraange la itam moom tamit maanaam ci mbooleem xeeti euh, mauvaise yi rek waaw xale boo xamante ni góor da koy takk jigéen da koy takk koo xamante ni sa xale danga ko am mu mel ni dafa du jàng da koy fàtte wala bu nekkee ci école bi du kii yooyu dañu koy tawat bu nekkee ci école bi mel ni ku absenté wu mel ni ku fi nekkut monsieur mm-hmm. bi dana wax bu pare sax mu naan lu kii monsieur bi wax voilà yooyu noonu incha allah boo ko kiyee sa xale muy góor muy jigéen mën na ko takk mm-hmm. euh, dina ko kii ci lu baree bëri incha allah mm-hmm. waaw kii la ñuy wax itam maanaam jaaru yi jaaru yi lañ doon wax léegi Euh, am na ay ay façon yu bëri bëri. yéen yi ngay gis nii ni ay commande la yu ñu yu ñu defar ba pare benn bi États-Unis la jëm benn bi mi ngi jëm fii nii ci raison yi rek euh, seeni borom kii nañ ko ba pare te nekkul ne jaaru yi kese la ñuy joxe. Mhm. maanaam dañ koy àndale ak ay sangat. ay sangat mhm. waaw parce que jaaru yi moom pour wàllu ubbeeku la bay rek koom-koom bon nit ñi dañ la jublu ba pare dina maye parole boo waxee nit ñi déglu la xam nga loolu am na solo. mais nag dafa ànd ak kaaraange. dégg nga mhm. loolu yëpp nag day aju si bu ñu la xoolalee ba pare maanaam def li si xaar xool ba pare sa situation bu fekkente ne danga am lu mel ni ay cat nekk sa yaram bi wala liggéey wala ay eh, yenn gàllankoor yi mhm. bu ko defee yooyu danañ xam na lañ koy boolee ak lii nii mhm. def ko ay sangat itam amal la protection boo xamante ni boo takkee lii dina la mën a jariñ parce que dañuy wax ne toujours nit ndab la waaw ndab bu setut ñam loo si def kenn du ko lekk kenn du ko lekk dëgg dégg de waaw kon lii ñam la boo xamante ni ndax lu soriwul boo ko fa defee it du ko jariñ dara. kon il faut nga tegtal li ne ci moom. voilà ba mu voilà ba set voilà voilà kon nga xam ne kon euh, il faut que rek ñu xoolal la ba pare si situation bu fekkente ne gàllankoor yu nekk na ci yow ñu fexe gàllankoor yu dañ ba pare utal la kaaraange nga soog a takk lii pour mu mën la jariñ. mu mën la jariñ. dégg de waaw yii yëpp moom xeetu ubbeeku la kii bi dañ ci defar itam lam am na jigéen ñoo xam ne dañu bëgg lam dañ ciy defar lam mu nekk lam xamante ni moom itam ci xeetu kaaraange lay doon waaw am na ci yoo xamante ni yii euh, comme genre poqet lañ koy wax am na ñoo xamante ni dañuy liggéenti muy dëgër waaw fu ñu dem rek seen yaakaar day dem ba dëgër waaye day yàqu rek luñ yaakaar mu tas mm. seen loxo bi am am bi dina dina ñëw waaye bu ñëwee ni muy ñëwee lay demee waaw loxo bu bënn lañ koy wax waaw waaw am na si jaaru spécial boo xamante ni moom lañ koy defar lu ñëw dina toog te ut bi dina yomb incha allah mm. waaw te itam nit ñi dañ la jublu ala kulli xaalin kon yi itam euh, yu am solo la yoo xamante ni ñu ngi ci yàgg nañ di ko def hmm? mm. euh, ci fii ak ci bitim réew yëpp waaye macha allah mm. te man li ma gën a jaaxal mooy euh, du du du du du ndamu dunda moo laa kulli mooy li ma wax rek amaa bi ne xamante ne fa xadis waaye ñi ñu koy defal ku ci nekk rek yaa may boole keneen waaw ñi may woo te diw moom noonu dafay fekk da nga jëflante ak moom bu pare kon loolu sant yàlla la alhamdulilah sant yàlla la yow bala ngay euh, jëflante kenn da koy seetal ba xam moom lan nga koy waral mooy yoon xam nga nit ki mënoo tëb tëb jox ko ay médicament mm-hmm. xamuloo réellement lan mooy feebar bi man nga ko gaañ sax mooy comme li ma la wax rek tey nga jël jaaru bii nii ak njariñam ni lim rëyee nga jox ko benn doomu aadama tabaxaloo ko ay sangat. Hmm. mën na ko gën a tëj sax. Hmm? Hmm. mën na gën a tëj. waaw kon il faut que boo demee ci hôpital bi balaa dara dañ lay consulter wu xool bu pare. xam feebar bi lan la ban médicament moo ci baax kon itam liggéeyu sëriñ dañ ko war a teg ci yoon. bu fekkente ne yow miy liggéey ci métier bi jànguloo pour ba xam ni ngay defee listixaar wala li ngay xoolee. da nga ko war a jàng nga xam ko. su bëgg dugg ci sama sey wala ma bëgg dugg ci dara. Euh, nga xol ko da suma ñëw ci yow dal nga xol ko dama koy wax toujours mané doom adama doom adama hmm. dafa melni comme télé bi ak commande. Hmm. doom adama moy télé bi dafa am commande bo xamanteni mo koy doxal. moy hmm. bidiw li ñuy wax ilmu nijoom donc wara jang nga xam ko. bu ko défé bo démé ba japp bidiw doom adama bi da nga mëna régler ay problème yépp mo xam ci walu tawat bi la mo xam ci walu régler ay ay yenn situation ci. Euh, ci ité jamono yi bo xasse ba japp ki bi rek dang ko meuna dang ko meuna dimbalé dimbale ci lu gawa gaw tay gis nga bu fekkee xamuloo biddiw bi hmm? te ñépp ñi ngi dox ci ki ci bidiw bi légui nga jël bidiw jambour nga né dang ko dang ko commandé télé bu dut mom comme bi marque Samsung la nga né dang ko dang ko commandé beneen kii hmm. dana dox du dox hmm. gis nga commande bi tim bu dafa am benn kii bu muy fiiloo ak tele bi hmm. bu fekkente ne da nga jël commande bi nga nëbbu loolu hmm. ngay ngay commandé est dana jàpp du jàpp dara hmm. kon xam-xam dafa laaj nga xam ko dafa laaj nga xam ko lu mu lu mu rek xam ko xam bu wér moo tax yàlla wax ne xam leen ma <laughs> balaa ngeen may jaamu bu ngeen ma xamule ndax ngeen may jaamu waaw kon sëñ bi émission bi jeex na waaw looy tàggatoo waaw di dooli sant yàlla bu baax a baax di ñaax askan wi pour ñu gën a fagaru ci seen cosaan nit ki lu mu am dafa war a xam ne lii laa am mu jàpp ko fukki loxoom ak ñaar ak benn fukki loxoom. fukki loxoom olof moo koy wax waaye fukki baaraam la. Baay nee na fukki baaraam la Baay Ñas mu ne olof mooy wax ne fukki fukki loxo. waaye nit amul fukki loxo fukki baaraam la am. kon lim am lim am na nekk bonheur bu rëy ci moom. mu téye ko ak fukki baaraamam. dégg kon su boobaa lépp lu mu ci bëgg rek dina possible pour mu def ko ci. waaw waaye boo ko sàgganee dañuy wax ànd boo dem. ànd boo bàyyi sa boobaay sa ànd ànd boo dem rek fekk fa borom mu toog fa fees ku del su boobaa nga bàyyi sa sa lii nga dem ci beneen kii nga fekk kooku fees euh, place am nga daal di perte ñaar yëpp perte li ñuy wax le 10 le 7 la kuli xaalim kon ñu ngi doolee sant yàlla bu baax a baax di di leen gërëm bu baax a baax di kontaan ci yéen bu baax a baax hmm? di leen ñaanal yàlla seen euh, métier bii nii yàlla may leen ci ay grade yu kawe kawe dem ba may leen seen i bopp maanaam ngeen dem bay jël ay emploi yoo xamante ni yéen koy fayal seen bopp wala kuli xaalin euh, mbooleem ñi nga xamante ni itam ñu ngi doon déglu ñu leen di ñaanal yàlla ku ci am tawat yàlla saafara ko jafe-jafe yàlla saafara ko ñu nekk ci hôpital yàlla saafara leen prison yi ñi si nekk ñëpp yàlla kii leen xalifa généraux yi maanaam euh, ak xalifa zahir yi président yi nga xam te ñoom ñu jiite ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm defal leen tawféex def ci Sénégal jàmm di gërëm ñi nga xamante ni ñoom laa toogaloon kii hmm. sama mbokk la daf may jàppale ci bind bi ñii ni samay euh, euh, cousin cousin lañ hmm. euh, te muy Mouhamadou Moustapha cham ak euh, Mame Jimba euh, Ahmad Jimba Thiam kii Aliou Sow la tudd ñoom ñi ñoom laa nekkal fii ñu may jàppale ci ci liggéey bi ala halim xaalim hmm. comme accueil bi nga doon wax dañ may dañ dañuy accueil nit ñi accueil bi nga xamante ni moo gën a hmm. wax ak ñoom wax yu sedd ala kulli xaalim parce que nit ki bu amee jaaxle ñëw ci yow ni ngay weccanteeg moom kàddu itam kooku am amna ci solo parce que wax bi ngay wax ak moom rek loolu

bu ko defé dañ la andi ci jumaa ji boo ñëwee ba foofu noonu même bo laccé bu ñu kii wut boo wootee rek dañ la tektal pour nga ñëw ci facilement do do sonno la kul xalil kon ñi ngi sant ñi ngi gëreum euh ñi ngi wax suñu mujj wax wa akhiru daxwana alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf euh bay abdoulay Thiam ci waxtaan wi yow itam ñi ngi lay sant bu baax baax di la gëreum ndax xam-xam sori wul da làqatu rek ci suñu borom may na la gëstu nga jang nga jangat nga ba suñu borom may la tay xam-xam bo xamanteni ni nañ waxtaan wi kenn nattableetut ko kon ñi ngeen yàlla dafa la tawféex moo xam ñi nga xamanteni ni dañoo amee ay jangori jàngoro fasantikoo ñi bëgg sey ñi nga xamanteni ñu am jefe jefe, ñi bëgg a listixaarlu ñi bëgg a duggloo xalwaw xalwatu ñom ñepp ku ci joko ak yow ci numéro téléphone yi joxé inshallah rabbi lolou dina jappandi waye tam képp ko xam da nga bëgg ubéku bëgg bayre wala ko xamante tam da ngaa bëgg ay kayit bëgg a tukki wala fa nga nekk ci bitim réew nga bëgg kayit yoo xam ne ci yow ko defee loolu fas yu mu fiy am itam koo xamante ku néew kàttan wala itam koo xam amul dara ci kàttan yooyu yëpp da nga yëngu bu baax a baax waaye itam emurit ak euh, yu bëri da koy faj ak tension ak lu mel ni ki noonu ay xeeti jàngoro fasanti ko daal yëpp da koy faj ci kàttan ak suñu borom lépp mu jaare ko ci alxuraan di faj itam di def li nga xamante mooy euh, ñaanal doomu aadama yi lépp nag teg ko ci euh, kàttan ak suñu borom kon ñi ngi sant bu baax baax ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi doon ànd ak ñun ci seen euh, site internet murit point info di ñaan yàlla defal leen tawfeex taysiir seen mbokk Moussa Diop ci présentation bi di sant suñu caméraman Serigne Mbacke Dieng wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.